exemple simple hmm? li ngeen yëgul mooy ñaari yoon attante nañ ko pour rey ko te nit ñi ko te boobu njool mii di pousser surga bi fi ne moo ko tëral pour wax la xëy jox ko rendez-vous ni ko duñu war a waxtaane affaire réew mi def ko gannaaw timis mu wax benn njabootam ne ko bu heure bi jotee nga jël si ma heure ba jot gisul njaboot ba ne ko moom it ci complot bi la bokk te comme moom dafa fonk rendez-vous mu daan di jël taxi tam bi mu demee kër premier ministre la ñu organisé affaire ba mu ñëw ci bunt bi fekk fi gendarme bi ne ko ana ah, premier ministre mu ne ko nekku fi dafa dem aéroport jëli gan mu ne ah moo ma joxoon rendez-vous di mu ne ko dugal ci salle bi kon nee na ma dugg ci saal bi toog tuuti gis ñeenti ponkali prouñ yu sol seen bataay yu yem fii ak seen ki yu der yooyu nee jëm si ci man ma xam ne leneen na leen yëkkati waaye nee na ba mu ñëwee ba jub si ma ma xool ki ci gën a mag rek xool ko ni ko xaalak nee na mu mel ni dañ ko dóoryaat nee na ma daal di jóg nee na xool ko benn xool mu mel ni dañ leen a neutraliser nee na ma génn wax gendarme bi ne ko jëlal ma taxi mu jëlal ko taxi mu dem le lendemain ki ko waroon jël si mu ne ko waaw yow maa ngi la jox rendez-vous di la xaar gisuma la muy lay yi yu kenn xamul naan ko sama oto lii sama oto laa man wax naa téléphone amul pour wax la pour wax la beneen bi dafa jël décision pour dem Suisse fekk affaire arthrose boobu soxna ki ni mi xam na ci dara ndaj na ca lu ne ñu boole ko benn spécialiste Suisse pour mu dem mu seetal ko arthrose yi te mooy oom yéeg yooyu nga xam ni bu sedd bi ñëwee day gën di doy waar waaw benn wëllëre buy liggéey présidence ñëw seet si ma ni ma góor gi day voyage ah, ma jaaxle ndax man yëguma ko góor gi day voyage ma ni ko ah yëguma ko de mu ni ma bu dee day voyage wax ko bu mu dem ma ne ko ah lu tax man ma dinaa la wax le lendemain bàyyoo ma ni kay wuyu góor gi ma ñëw toog ak moom mu ni ma Moussa man kat dama bëgg lundi bii di ñëw dama bëgg a daw Suisse te ñëw ndax dafa am benn spécialiste bu man affaire arthrose moom laa bëgg a dem seeti ba jël naa rendez ba noppi def naa sama réservation pour lundi ma ni woon ma wax la ko ma ne ko gëwuma nga mën a dem nag mu mel ni daf ni tikki ni ni ma ah mu sëf lu tax ma ne ko dañ ñu dañ ma waxoon ni ma mag yow bu ñu génn réew mi ci waxtu bi nañu xaar tuuti bañ ko wax li ci nekk fekk kooku del si na seet si ma ni ma dañu tëral pour que bu góor gi demee foofu ñu éliminer ko foofu wax ma ña nekk ca biir yëf yee yépp ñu ko tëral loolu moo indi coow li am ci débat bi amoon fii ci Walfadjri ki doon wax ni kilifa yi fi dem yépp dafa laajoon ñu defal leen autopsie nit ñi di ko saaga il avait parfaitement raison yee xew fii am na rakki iblis ju nekk fii baax na nañu toog di seetaan rek waaw pour wax leen ah wax leen du du tout et du n'importe quoi waaw waxuma leen ko pour yëngal leen wala pour dara ndax man mii empoisonné nañ ma ca Côte d'Ivoire pour vous dire ma jël antidote bi rek waaw billahi wal kitaab waaw te ci sama café lañ ko def